décision CREI comme décision politique la Macky Sall la engagé décision politique Macky Sall mënatul empêcher Karim nekk candidat décision CREI mënul fexe ba Karim perte ay droits civiques te ñëpp wax nañ ko élection mënu fi am te Karim nekkul candidat te dinañ ko commencé ci législative yi dinañu demande parti bi mu fexe ba jël Karim Wade def ko tête de liste des élections législatives ba ñu xool ndax Macky dina accepté wala du accepté candidature bu bëggee jàmm nag na préparé wu mu rencontré Karim Wade aux élections de 2019 donc loolu yenn jeunes yi bu leen kenn fexe ba ngeen perte espoir bu leen kenn fexe ba ngeen perte espoir di douter ci candidature gëm leen ni candidat la buñ ko bëgguloon def candidat ba bëgg sax pertloo ko ay droit civique am ñun jeunes yi ñooy wàcc ci tali bi bañ ne benn candidat du fi def élection kenn du fi campagne il faut que ñëpp nangu mën a ñëpp nangu ni candidat parti politique yëpp dañuy bokk ci élection yi mais profito pour wax waa opposition ba parce que si ñoom tamit dañuy laam-laam ñoo xam ne bëgguñu Karim bokk si élection yi jàpp ne bu bokkul si élection ñoom dañuy am chance mën a nekk candidat seen démarche nag bu waree sincère ñu ngi leen di demander na si coalition bi am coalition manko bi nga xam ne ñu ngi ciy xeex lu bëre bëre bëre pour sénégalais nañ ci boole dossier Karim Wade te mu fexe tamit ñu demander que bu kenn jéem a bëgg rocci droit civique benn candidat au présidentiel de 2019